gañe ko ngañaay goo xam ne maanaam amut laam-laamee bu vingt heures jotee bu rajo yi waxee rek ñëpp danañ xam ne kii daaneel na kii mu jeex ndax ñiñ ko séqalkat dañoo nekk nit ñoo xam ne wër-wërloo ak tappale dañ koo man kon waruñoo gañe sax cinquante cinq pour cent ak soixante pour cent soixante dix ba soixante quinze pour cent lañ soxla te loolu liggéeyee ko man beneen bi ci des mooy procès bi ñi ci ñi ci tëdd ñi ci ñàkk liggéey ak ñun ñii rek bundu xataal gii ñu ñuy bunduxataal ci senegal dafa metti bari ki démb damay wax téléphone ak kilifa euh, ma ne non bu ma taxawee ci ëtt bi mën naa am nit dégg ma xaaral ma dem ci buntu kër bi ma taxaw ci buntu kër bi di wax téléphone ba mu yàgg ma avancé ba ca bopp koñ ba noonu taxaw fa lu mat de temps wax téléphone ba noppi di ñëw bi ma ñëwee dama fekk sama waa kër yëpp ci buntu kër bi ñu taxaw tiit nañ pour ñoom jël nañ ma ba yóbbu ma bu yàgg réew moomu lañ yor mooy ku gisul sa mbokk sax yaakaar nga ne jël nañ ko ba tëj ko wala jël nañ ko ba rey ko kon sénégalais yi seen xel dalut loolu nag li ko fiy jëlee mooy élection yii di ñëw la cinq février ñu taxaw jëlee fi jëli suñuy carte avant tout parce que képp ku ne da ngay da ngaa bëgg a jàppale Ousmane Sonko li nga mën a jàppale la ca gën mooy wateel ko la ko mën a wateele nag mooy carte d'identité te carte d'identité yi ñu ngi fees dell ci préfecture yi fees dell ci yi ba noppi ngeen yor nekk ci Facebook bi di coow loolu amul solo la kenn ku nekk dajale sa njaboot ku war dem jëli kartam na ko dem jëli damay wax ne taxawaay bi ku bëgg a xam nu mu war a toll rek na nga gëmm nga xalaat Amadou Ba wala boog euh, euh, candidat continuité bi mu nekk ca palais ba def passation de service ba noppi fukki at yooyu coono bi nga nar a dund ci Sénégal boo ko xalaatee di nga jël coono boobu nga def ko ci vingt et un jours yii ñu war a campagne pour musiba moomu bañ am ci Sénégal mukk sëñ Samba wax ne ku xalaat bu njëkk ci ci nit bi bu la neexee campagne bi tëddal heure bu la neex yeewul heure bu la neex waaye kuy xalaat dal continuité ci biir pale bii doo amati heure tëdd doo amati heure u yeewu waaw ku dul xalaat guddi gi njëkk ci bàmmeel lu la neex defal waaye ku dul xalaat continuité dugg na pale waaye waaye heure boo la neex yewul boo amee sa xaalis téyel boo amee sa discours téyel waaye bu ngeen sàgganee ba continuer te dugg ci palais bii danañ yokk torox giñ torox danañ yokk coono biñ sonn danañ yokk jaaxle giñ jaaxle loolu moom sénégalais yépp laa koy wax bu kenn am heure bu kenn am heure tëdd kenn ku nekk dellul ci sa dëkku baay ak sa dëkku maam wala nga dem fa nga takke soxna baa nga dem ci say goro lépp pour rek bu élection yi jotee bu ñu mënee gañe quatre quatre-vingt pour cent sax ñu jël lu mu gën a gaaw rek gën a leer rek moo ñu gënal ndax loolu mooy li war te nag Ousmane Sonko da ko liggéey parti Pastef liggéey ko bam mu des ñaar fukki fan su Sonko nekk bayreem ak mbooloom ak xëy ba mate na dem wër Sénégal def li def ñëw ñun ñii ñëpp mën nañoo nekk ci suñuy kurus waaye nag bàjjob la dafay nekkut dañ koo téye te téye gi nag liñ ci identifier bokkoon na ci dañ ko téyewul woon ca législatif ya mu dem campagne xaw leen a rey mhm. ñu ne kon buñ ko téyee bu campagne danañ am benn dix pour cent boo xam ne bu Sonko campagne oon ñoom danañ wate dix pour cent boobu nag nañ génn campagne pour nangu ji ko ba nga xam ne Sonko campagne ak mu campagne ñoo yem wala sax ñu ne bu Sonko bu ñu bàyyi Sonko mu camp mu campagne pour Cheikh Bara ak Cheikh Tahirou ñoom ñi bañ a génn ci terrain bi parce que jàpp ñëpp buñ génnee kenn ku nekk def li nga war a def ci vingt vingt deux jours yooyu mm. moom mooy raw bu Ousmane Sonko génn donc kon loolu nañ ko bàyyi xel deuxièmement bi may waxaat rek mooy Ousmane sonk ci boppam euh, xam naa ne wax ji dana ci jot mooy kilifa yi dañ koo ñaanoon ca mois de mars ne ko bàyyil mu ne ku ngeen di ñaan nekku fi waaye ku ngeen di jox ndigal mu jëfe ko moo fi nekk ba loola amee sëriñ Muntaxa Mbàkke wax ko ne ko man de Ousmane ameel naa la bor te sëñ Muntaxa de mooy sëñ Tubaa comme ameel bor dana la fay ma toog di seetaan Ousmane ko barki démb mu ne maa ngi ñaan sénégalais yi soit bii ma def muy Bassirou Diomaye Faye nañ ma ci fekk si dafa ñaan comme ni ko sëñ Mountakha ñaane woon waaye ma gis sénégalais yëpp di ko tontu rek daf bàyyiwuñ xel liñ ko tontu ñun amuñu luñ lay may danga ñuy digal rek koo joxoñ nga dem fa muy baat ba mu tontu woon sëñ Mountakha sénégalais yi di ko ko tontu kon sëñ Mountakha fay na ko borom ndax su fekkente ne kilifa diine yi dafa jekku état bi moom. kilifa diine ne ko ñaan naa la mu ne bul ma ñaan digal ma rek ma def moom bu toogee wax Sénégalais ne leen ñaan naa ne amul fi koy ñaan muy digal mu def dafa am te incha allahu sa ndigal loolu quatorze régions Sénégal yëpp danañ ko jëfe mooy taxaw jël bulletin Bassirou Diomaye Faye wote ko sans xalaat dara parce que xam nañ Diomaye la jomaay mooy Ousmane Ousmane ci nga ka ca des te yàlla Moussa ba muy wax yàlla ne defal ma sama rakk jii muy Haaruna euh, ab yonentu la yàlla waxoon rek la ñuy wax xat utita jeex na ah jomaay moomu nag yàlla dafa dogal ah Ousmane la ñuy wax zil noorey nii borom ñaari leer yi moo ne mënoon nañ ko wax boroom genn leer gi de waaye borom ñaari leer lañ wax kon nag ñaari leer yi boo ci topp rek ci Ousmane lay delloo benn leer gi boo ko toppee mu yóbbu la ci Ousmane Sonko geneen leer gi boo ko toppee mooy jomaay mu delloowaat la ci Ousmane Sonko ndax mooy borom ñaari leer yi us jomaay nag dafa am lu ci am loo xam ne euh, dama bëgg Sénégalais yëpp bàyyiwaale ko xel ndax bulletin bi gis naa ne amul lenn luñ mën a tudd ne lii mooy bulletin Diomaye fay moo nekk ca bulletin ba comme ni ñi mën a waxee bopp fas wi nga xam ne dañ naan moytu leen bulletin bopp fas woowu baaxut amuñu ñun màndarga waaye dafa am màndarga moo xam ne moo doy mandarga mooy mbooleem candidat yëpp ñaar fukki candidat yëpp ka am sikkim ba rek bi rek mooy Diomaye kon maire yeeg paa yeeg doog a borom bët yu naqari yeeg ñëpp rek ab sikkim neex naa xam candidat yi ñaar fukk yëpp benn Pape Djibril laa ci gis moo yor astikil su toll nii te dinaa ko wër ba gis ko wat ko waaw campagne bi moom xam naa fu ñu daje maag Pape Djibril dina ñu bàyyee suñu sikkim moom sikkim moom ñoo ko moom waaw loolu na leer nañ ñi waaw Pape Djibril jox naa la eh, ultimatum vingt quatre heures sikkim bi na dañ waaw candidat yi ci des yëpp ñii la def nu rus mennum jamaay moo ci yor ay faas na ngeen ko xàmmee borom faas yu jekk yi rek kooku mooy Ousmane ko ko wateel wateel nga Ousmane te nag dafa am lu ci am lu baatine mooy turandoom mm. sëñ Basiiru mm. ay faas lañ ko doon xàmmee mm. boo déggee bu ñu la joxee junni nga ne ñu naan la jox ma bas ñu naan mooy junni sëñ Fàllu moo daan tooñe sëñ Basiiru bas ndax dafa am ci kayitu téeméer wa jamonoy sëñ Fàllu dafa am paa buñ ci defoon bu am ab sikkim sikkim bañ ci defoon nag sëñ Fàllu xool ko di tooñ naan borom sikkim bi sëñ Basiiru la looloo tax mujj ñi naan junni bi ku ne koo ne bas rek ñi xam ne junni ngay wax kon turandooy jomaay fay ci boppam ab sikkim lañ ko daan xàmmi ko mooy sikkim bu jekk ba kon nag Bassirou fay Faye bulletin sénégalais yëpp nañ ko xam ne kuy wate rek wateelal borom sikkim bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu